clip nga xam moom clip na quoi waaw clip moom clip bu nice te dafa ñëw style bu bees quoi en plus xam nga lu dafa ñëwaat wane war quoi prison bi lañ nekkoon affaire yooyu noonu xam nga mu génne pour fësal gars yi xam nga wane moom ñëwaat ak anam bu rafet daal wax dëgg yàlla waa te booy booy bu jàmbaaro quoi booy moom rab rek lay def macha allah dañ koy bëggee nag lu dañ koy bëggee nice ah. mais boobu ay affaire style la rek yow xam nga rek affaire affaire sénégalais la xam nga rek. des fois mi sax du ma du ma loolu mais man mën naa jël benn geste def nii wala dara gars fan na loola xëy na man dama siwul mais moom dafa siw affaire am boo siwee tamit gars yi lu ne lañ booy bi doxul sax si yooyu booy bi booy la quoi te jeune nañ ko jàppale waaw wax dëgg yàlla bëggee de quoi man dama koy bëggee daal waaw. maa dégg ci moom loolu quoi même clipam yu ma seetaan yi nii yëpp mosuma ko mais clip bi dama koy dégg rek mais mosuma ko seetaan nii seetaanaguma ko est-ce waaw man loolu laa am lu ma ci wax quoi mais quant ay formation la mais loolu wóoruma quoi parce que mosuma koo gis ci moom. mais yow nga xam moo ngi am succès hmm? am succès ba léegi ba nga gisee ne ñëwaat na ci rab bi. waaw ba mu génnee ba tey yaakaar naa ci la gën a développé wu. waaw day toppandoo dip lan ci formation bi wala ci rab bi. ci clip être loolu mën na nekk loolu mën na nekk tamit mais bu fekkee cadre rab moom dib daa koo rab moom. merci waaw kilifa ngaa ko doon ci wax mooy mooy jaar na yoon rek bon ñoo toll monde boo xam ne ni instant bi bu nit ñi ci li ñu nekk rek nit ñi gars yi saboté wax lu ñaaw mais yaakaar naa ne dara nekk si loo xam ne nii war na ñoo mën a róobe hmm? tegu na daal pour man daal li muy rab daal baax na am na solo daal non man non ku ko gis-gis ne formation ci ko ciy wax mais ñun ñu ngi koy xool ñun am na ñoo xam ne ñu bari ñu mel ni man gisuñ ci loolu noonu de yaakaar ne mu ngi si rek nekk si daal la def daal yaakaar naa. nice cool lépp jàmm. léegi yow tey dañu ñëwoon di mhm. gis boo xam ne dafa am waaw formation moom man je peux dire que nii loolu du du nit li muy ñëw doon facilement quoi en fait du nit li muy ñëw doon facilement peut-être moom clip bi dafa am leneen lu mu ci seen tout genre mais man je vois que le clip c'est un peu satanique quoi. clip bi dafa xaw a la vidéo est un peu satanique quoi genre utilise des choses yoo xamante ni loolu mënoon na ko bañ a utiliser jouer clip bam véhiculer message am sans compter di utiliser des choses yoo xamante dafa xaw a lié ci affaire lu lëndëm quoi lu leerul waaw justement loolu laa am wax ci clip parce que booy xool même rappeur rap rap français c'est comme ça ñoom seen vidéo yi dañuy véhiculer ay yenn message yoo xamante ni c'est étrange quoi et puis seeni i seeni kàddu ci boppam même mu dul image yi mais seen kàddu ci boppam dafa am li muy wax quoi dafa am ay messages yu muy véhiculer léegi même message boobu dañ ko war a leeral population bi dañ ko war a leeral seen i public comprendre nga ñu ñëw am lu ñuy làkk seen biir saawoon même booy toog ak ñoom émission di leen laaj yéen yow kàddu bii nga bëgg a wax sa biir pour lan la mais dañ lay réeral dañuy essayer de la leeral la wax lu leer je vois que ni loolu amul sens quoi en fait bu ñu fen wax public bi dëgg. parce que ñun waaw mais tamit dugg na prison xam Sénégal moom yow la fi am gis bëggu ñu gis nit ku ñu néewal doole ko en fait dugg na prison génn na gars yëpp ñu koy may bës ñu koy may bës en parlant de lui quoi en fait ñëpp moom la ñuy wax dugg na prison génn na bëgg na ñëw def bës encore li mu temps bi mu jotoon perdre bëgg bëgg na ko gagné waat vite fait waaw loolu laa am li ma ci wax quoi mais en fait je que ni jaar-jaar la quoi en fait jaar-jaar la.